أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود وأشهد أن لا إله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد اللهم إنا نسألك كما أمرتنا أن نصلي ونسلم ونبارك عليه وعلى آله كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآله في العالم إنك حميد مجيد asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ci pangoog alxaqu saabit ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyu bi mboolem kilifa yi ak ustaas yi boroom xam-xam yi nekk ci biir daara ji di fas yéene àndaat ak yéen insha allah tey ci beneen tomb waxtaan mu bokk ci biir waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci ayu bis bi yëpp tey jii insha allah ci kàttanu yàlla ñu fas yéene ànd ak ci waxtaan wi koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko ñëpp xam nañ ko ñëpp yàkkamti nañ déglu ay waxtaanam ndax lépp ay irshadaat la ak ay tanbihaat kooku mooy al aalim al faylasuuf al al murabbi al ustaaz Moustapha Diop Kokki al ustaaz Moustapha Diop Kokki nag yaakaar naa ganiyun an taarif waaw boo waxee turam rek jërul nga di ko xamle ñëpp xam nañ ko waaye doy na rek ñu ne moom aalim rabbaani la waaye mu rabbi la tamit te xam-xam rek moo ko ñor kon oustaz Moustapha Diop Kokki tey moom lañ fas yéene dalal mu war ñoo waxtaanal nag ci tomb boo xam ne bokk na ci tomb yi gën a am solo ci jamono ji ñu toll te mooy kayfa naxtaaru raisal jumhuriya wala kayfa tuxtaaru raisul jumhuriya loolu mooy président de la république ki nga xam ne mooy war a jiite réew mi naka lañ ko war a tànnee ndax suñu réew di Sénégal lu ëpp juróom benn fukki at ci ginnaaw ba léegi ñoo ngi tànn ay njiit waaye ba léegi mu mel ni amagun ci liñ ci bëgg kon day day jar ñu taxaw nag xool ndax ci ñi ñuy tànn ñoo baaxut wala ñun ñoo mënul tànn kon tomb boobu la ñu war a waxtaanal tey mooy naka la ñu war a tànnee ab njiit wala naka la ñu tànnee ab président de la république kon oustaz Moustapha Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziara di la tatagal di la ñaanal yàlla suñu borom mu defal la tawfiix kàttanal la leeral sa làmmiñ ba li ngay indi ci waxtaan wi mu mën a dugg ci xol yi yegg ci dënn yi bañ mën koo jëriñoo bismillah.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لفت وهب لي وارزقني كن انا ضيف اجلا عجلا بالبسم محمد الدين حتى اكون لدين الله الكرم يسر دعائي توعى واحمني وقني اذى الورى واطرب مسكنا السماء ولا ارادي والهو بها مساجدين لي شكرا اجيب وسلم بسم الله حسن دي محمد تؤتوا لي كان ضنا وسلم وسلم امين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته waa alxaqu saabit ñu ngi leen di siyaare ci seen i tur seen i sant di siyaare képp fu nu waaye di di mën di déggee di di di di leen ñaanal aw yiw di ko tàmbalee ca Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal aw yiw di ko ñaanal kaaraange ndimbal ak yàlla fekk fanam ba mu ba mu nekkaat fii na ko bëggee. di ko ñaanal xalifa généraux yi ci réew mi yëpp di di di ñaanal rais Macky Sall xamet suñu borom dimbale ko ba leen ñi ba ba leen nit ñi sendu ci ci moom loola moom loola mu defee ko na nañ ko bëggee di di ñaanal ki njiiti ku jégi yëpp ñoom it suñu borom dimbale leen ba li ñu sentu ci ñoom seeni ñu nga àndal ñoom li ñu sentu ci ñoom ñëpp suñu borom te te mu gën ci réew bi nag ku ma ñaar uyu loolu la ci yéene te te mu gën ci réew mi su su su boobaa waaye am na ko ko ko yàlla sotti la képp ku yéene loo xam ne gënu gënu ci ci réew mi yàlla bu ko yàlla sottal kon kon de suñu fal kon ñu ngi leen di ñu ñu ñu ngi siyaare ñu ngi siyaare xam naa kon ñu tàmbali waxtaan wi noonu noonu nga ko waxee rek naka la ñuy tànne njiitu réew waaye nag kayfa taxtaaru raisal jumhuriya wifqa dawaabit charia xam naa loolu kon dana si baax nga xam nga xam ne jullit bi moom jullit bi jullit bi moom bu dee tànn njiitu réew maanaam lan la ci lan la ci jublu moom lan la ci raas moom moom jullit bi xam naa duma politicien man duma politicien wax naa ko sax bari wateeg yooyu yëpp moom bokkatuma ci man saa nekkatul ci yooya ndax dama am pare soqali réew mi ci sama façon ca dama ko gisee gisee ma boo xam ne gisee yi nu alxidma la digginu suñ bamba xidma xidma nga ma ne kon su boobaa ca ca ca biir diggin woowee ma am ci diggin goo goo xam ne dana tax ba damay nekk ci tool bi man di di bàyyee ka buddi ka defar gars yi nag ñoom mën nañoo dem ci pénc ma di di xool ñuy xëccoo adduna ji nuñ koy nuñ ko yéwéne la loolu mooy lu am solo mooy lu am solo mooy lu mooy lu am solo nga xam ne tan tan njiitu réew moom am na xatar am na danger boo xam ne ko ko xam luy raisu jumhur yi nga xam ne dara rek président mooy lan nga xam ko rek yaakaar naa doo ko jox benn waay noonu nag Sénégal dañuy mer li ñuy tuddee soxna faj faj faj mer wala wax ko ne ku ko def rëccu noonu nag moom la ñuy def ci suñu lépp rek buñ la buñ la bëggee démb mu nga jaral ñu lu ne buñ la bañee tey safaanoog lu ba lañ la ñu jaraloon lépp nga nga ci ci nga ci nga jaral ñu ko tey. kooku nag day day mel ne imma la laa takku ne imma kooku dafa mel ne aw topp rek la xalaatul nag dama bëggoon buñ jógee ci waxtaan wi ku kuy tànn sa jiitul réew nga tànn ko ci ci ci ak liberté ci xalaat xalaat yu leer xam-xam ba ma ci am am ci raisul jumhur yi ñu koy tànn yaakaar naa moom la si ñëpp am rek xanaa dañoo wax ma tara ci rek waaye ndax xawma ci sax daanaka lu lu bari déedéet lu bari xanaa xanaa nekk ci réew mi nekkul ci bitim réew di di seetlu Senghor ba tey ngay seetlu ba ngay seetlu doxinu nit ñi ni ñuy ni ñuy tànne ak nga xam ne gis nga ne ñoom kat daa mel ne bariwuñ xel sax ki ñu tànn kom doon waaye ki ñu tànn daal mooy sama nangam la sama nangam la sama nangam la waaye du sax sunu nangam la bi nga koy tànn it xooloo ba xam fi nga ko bëgg a teg ànd bi nga ko bëgg a teg ba ànd la ànd ba lu ci ne mbaa du mbaa du for bëre këpp ko ci néeg bi néeg ba jàpp mbaa du mbaa du secret boo xam ne bu su bés ko génnee ëtt ba ndas mbaadu mbaadu moo ne ca ànd ba mbaadu mbaadu yu yu bari yoo xam ne ne bayuñu xel nga xam ne bàyyiwuñu xel xelit ne boo ko falee ba ba noppi doole ji ji mu yor soo ko fa bëggoon a ji jëree da nga tas at ba yu bëree bëri la muy mu yoo xam ne jumbut waa ji yoon sànni sànnil ab la waxam booba bay wut xel kan mooy wala mansab bi wala wàccuwaay bi nga xam ne moom la kooka am buñ bëggee wax rek ne président rais kooku mooy njiitu réew mooy ramsu dawlati wa sulta al ulya ak tanfisiya moom moom dëgg dëgg moom mooy symbole bi nga xam ne moom mooy lay wax état état mooy mooy représenté état dëgg état bu tàmbalee ca suuf ca reen ya di dox ba ci njobaxtan la njobaxtan lay président yéen a ngi yéen a ngi seetlu ne maanaam buri ay reen dagg ko mu yombut waaye folet folet ay njëbbat ma ca kaw di taar lool loola moom comb na waaye nag njëbbat moom li ñuy piseen niiwaa nag koy gis sax for reen yow wala mu di ko baxee la rais te mooy président comme doon ginnaaw saa buñ bëggee exécuté dara buñ bëggee dogal dara moo ci loxoom lay jaar waaw kooku kon ku ku ku réeréel de ku foor a foor la nañ xool moom kat moom raïs bi mooy mooy fal alxaqa ad diplomatia bat an min raïsil xukuma ila sufara maanaam yi nga xam ne pal la yoo xam ne pal diplomatique la nga xam ne maanaam jaarewut ca irni ya jaarewut ca bañ gàcc ya kooku moom moo koy fal te mooy yi gën a fooba ci nguur ga gouvernement bi moo koy fal fal kenn kooka kooka kam fal tànn gouvernement am ndax lañ ci jublu jombul mooy ku mën a déggool président bi seet na ku déggool ne ko xoolal ma ñoo déggool so so sama projet yi may wax koo xam ñoo xam ne danañ ma ci mën a xaatal mën man mën ma ko dox doxaloo bu bu bu doon sax ci réew yu mag yi sax xam ne sulta tanfisir sulta tashriya yi day taqali ko ñi dogal ak ñi nga xam ne ñooy xalaat atte yi ak ñi koy dogal duñ bokk waaye bu dee ci zone yooyu yooyu mën na yooyu jumbut jumbut man daanaka for benn lay doon foofu foofu no noonu mu fale njiitul gouvernement bi noonu la la ko mën a la follee ci saasa jaratu xalam rek scientifique bu gàtt bu yomb rek mën nañ cee daal di daani gouvernement ba daal di ne daal di ne nañ nañ indiwaat yeneen def ay élection yoo xam ne jumbut ci saa su gisee ne crise am na ci réew mi moom it mën na ko def woote lu lu mel ne istifta référendum nga xam ne moom daal mooy njaatige lu lu mag li da da danañ laaj kii laaj bu rëy bu am solo xam ne jëmbët day mel day mel ne waa mbedd mi ñu bari ba wuñ ko xel te mooy di alfarqu bayna dawlati wal xukuma maanaam réew mi réew mi ki ko jiite kooka gouvernement li la la ab gouvernement la la yor jiite ko waaw waaye nga xam ne moo koy moo moo moo ca soppaxndiku nam ma ne waaye état moom mi ngi fi moom moom fi la ko fekk état ci misaal mooy ad building administratif Senghor ba tey boo demee nga fa fekk ñoo xam ne màgg nañ fa ñu nga jël seen i dossier seen nangam ñoom përuñoo kenn yëguñu ne sax parti sàngam gañe nag gañe wut maanaam duñ ca duñ ca taxawlu ñoom ñoom amuñ jot ña nga ca seen bureau ya di saytu reeni réew mi ba du maxe ba du yàqu ba du mamp ñooñu ñu ñooñu ñooy ci état ñooñu moom liggéeyal réew mi rek mooy si nii te bu ñu noppee teg ko ci loxo yi yi nga xam ne président war na caa def dara ñu ne ko nangam masuura ne ko nangam te war nga ko def su président bëggoon a def nangam ñu ngi ko déedéet loolu loolu de mënut a nekk ndax nangam président yi ginnaaw sarti réew mi tënk na ko dana xam ne kat loola moom su ko defee bu leen jéggee ñoom mën naa sax fa yàqule nga xam ne ne kon kooku état mooy mooy mooy ren yi góor góor na maa nag mooy loolu ñu ñuy falaka folli dugal ci yaama neex ak nangam ak ko jortu ne mën na laa jàllaleel sa sa projet sab naa la président ñu bari xamuñu ne mooy soldaar yi ñi nga xamante ne ñooy takk der yi ñëpp président de la république ci loxoom la ne mooy seen njiit moo tax moo tax lu mel ne ki ñu dénk kaaraange réew mi nga xamante ne nga xamante ne réew mi moo moo koy sàmm di ko saytu bi ta bi mu yàlla kooka moo koy moo koy tànn wasiru difaa ki nga xamante ne moom mooy moo yor kaaraange réew mi moom it ci lim yor ni ni mu réyee moom président accord yu am moo koy signé moom mooy moom mooy déclarer guerre moom mooy yëgle ne kat jàmm am na da ngeen gis ci Amérique ak Russie seen xaq ba nawawi boobu boobu ñu yor seen seen wëliset yi nga xam ne ab bouton la rek buñ ko bësee bombe bombe nucléaire yi daal di naaw paris paris si daal buñ demee ba ba ba jox ko lenge yi lañ ko koy jox jox ko code yi saa buñ ko saa buñ bu ñu demee ba ba mu wàcc it doon si wër da koy da koy yóbbaale nanu ko Donald Trump defee woon waaye dañuy daal di dindi code ya daal di wutaat benn wala suñ jox ko président bu yes bi xam naa Trump doon daa bëggoon a defalee mu nekk ab projet xam naa bu bu bu bu koy fàttali nguur gi ndax mën naa boobu doyalagul ci nguur gi président kon mu mooy fal gouvernement nga xamante ne ne mooy seet ki nga xam ne juboon ak moom ndax mu mën ko wéye leel ay projet am président kon saa bu problème dëgg-dëgg amee mën naa daal di daal di gouvernement ba mën naa daal di woote référendum laajtu ba xam ne kat ndax ndax ndax nangam lu ci xalaat waaw président mooy ki nga xam ne mooy nekkal xeet wi ci nattangoo yi état bi nattangoo nag jublu ma ci ñu doon ay nattangoo dëgg xanaa xanaa ko ci autour rek autour rek wax ne nattangoo état yi ndax état yi waroon nañ lool état bu Amérique ak état bu France xam ne état ba laa wax di waxuma gouvernement ya kon président président bu ne moo mooy nattangoo président ba ci des donte ne wuute nañ doole lool nga xam ne bu bu ñu waree signé ay accords yoo xam ne réew mi mi kat réew sangam daa soxlaal dara soxla nañ ay ay jën sapon sapon soxla na ay jën fii ci Sénégal sapon mu amul dara xanaa dañoo jëfandikoo seen xel rek waaye dara yoruñu ko. suuf sa dara néew ci gi gi géej ga waxe nopp buñ bëggee ay jën dikk ci ci Sénégal ah dañoo bëgg jën de bëgg nañ ay jën yoo xam ne nag yu baax lay doon de jommu sax sama réew sax duñ ko duñ ko mos a gis waaye nag nuñ nag ci ci technologie bi fi mu àgg am suñu bato yi mooy napp de nit napput nit napput de ginnaaw ab bato bi machine bay napp machine machine ba du xàmmee sax liir jën yaag ci jalis moom day dem daal di provoqué jën yi jën yi daal di koy jublu si bu ñëwee liir yaag màggat yaag yëpp lay bëre dugal ci mbuus yóbbu la ca métti lool bu subaa bu demee liir jën yi yow buñ ci amul soxla daanaka dañ koy daal di sànni bu ñu ko sànniwu sit sunu ndox maanaam daal di manqué ay jën ndax liir ya waroon a doon jën yu mag ya dem nañ loolu misaal rek nga xam ne nga xam ne boobaa nun ñii di waxtaan ak ñii diglu daanaka kenn du yëg président moo sañ a xool ba xam ndax loolu moom arrangé na ko moom li waroon a nekk nag mooy ndax arrangé na réew mi waaye nag jombul mën naa am soxla na dara yoo xam ne sapp mën na ko daal di defal léegi waaye nag sart bi nag mooy mooy defal ma nangam dama xamut ban réew ci réew yi siin lu yeen lu yeen a seen seen seen ndox ma géej ga téeméeri at téeméeri at la ko duyee nga xam ne ci ci réew yi asi yi la daanaka léegi sax ma ngay màbb fan fan yi rek pétrole képp sax président ba daa génn ne pétrole pétrole amul ci réew mi ne xaw ma juróomi fan moom la moom la dese ci pétrole nga xam ne ngoog te kooku kat ba muy signé mbedd mi duñ ci xam dara ñoom nga xam ne ne kon foofu foofu foofu fu kon ñu ngi lay wax doole président comme doon président ndaje yi kàngami réew yi buñ dee daje moom moom it donte ne ak tunga ñu la ci seen biir waaye dana teew bu dikkee la ñuy wax lañ koy wax ne ko defal ñu nangam ñu defal la nangam yooyu nuñ duñ ca fekke dara duñ ca xam dara nii waa na sax ñu di ko publier ci sama yi nga xam ne ko kooka mooy kon mooy kon réew ma réew ma ñaar ñi ñu ngi seet ñuy réew ma waaye nag am na ay reen yu ne ci seen seen suuf mooy ci état kemtulaay nu état dëgëre na la kooka di mën a dëgëre kemtulaay nu mu yonjaxe ni ni la kookee di yonjaxe kon kon kon président kon njiitu réew mi kon mooy teewee ndaje yu kawe yooyu nga xam ne buñ génnee bay bay bay wax ak journaliste yi yooyu moom di kafakaree nangam mën naa am ci biir saal yi doon nañ saagante di di ba seen dënn yëngu waaye buñ génnee dañuy signe rek signe réew mi sax dañuy signe loolu la ñuy tuddee la ñuy wax ci biir palais ba loolu la ñuy tuddee géopolitique géopolitique nga xam nga xam ne boobaa intérêt képp intérêt réew ya moo war a taxaw waaye du nit ñi du ak xaritoo ak di suma xarit ak yooyu moom bu ñu génnee ci bitti lañ koy wax waaye intérêt réew yi moom moo war a taxaw ci bu dee réew ma état la bu dee réew ma état la kon moom état moom intérêt état bàyyi taxaw du sama intérêt man am troisième mandat ak ñàkk troisième mandat déedéet man li may soxla mooy sama état bi siggi ci kanam moom moroom mi état bi loolu nag bu dee ci ci ci ci état yu mag yi la waaw loolu yaakaar naa ñu wax sànq nii rek lenn la ci doole yi président xam ne bu ñuy fal président bawuñu ko xel bawuñu xel yooyu doole yi te am na yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen nga xam ne kooku doole ji rëy na rëy na te li ñu tuddee sart réew mi moo ko jox moo moo ko jox boo xasee teg lenge yi ci loxoom nag moom yow suñu doo sax fa dugg ca pale ba far yow suñu doo ko pale ba dëgg la wax de pale ba fa ñuy nasa ko noccee yow suñu doo fa dugg kon kon mu mu mat a baaxee kon foofu foofu kon dañuy dikk kon ci ci sànnil sa sa la wax nag aw kaart dëgg-dëgg ci lislaam ci dëgg léegi moom mooy structure bi tabaxee noonu pris ki ñuy wax président ni ñu ko tabaxee rek waaye nag kooku boo xasee xam ne nii la doole ji ci toll lan la la la diine wax moom diine falsafatu diin ci loolu lan la nañ fa xel lool lool ku mel ne man war damaa ragal référendum ba jamonoy Abdoulaye Wade ci biñ naan laïcité wotewuma defuma ko ndax lay laïcité bi booba ni ñu rabbee référendum bi moom boo boo nee waaw wala déet day am foo foo fare foo xam ne boobu man gënaluma nga xam ne may leen référendum bi de ku ko ku ko nangu laïcité bi jàll kon léegi yow daganal nga lislaam dem duutu atte moom léegi ñëw di sànni niil sab la wax sookaat lan la ci lislaam mooy nga الشهادة على أن هذا الشهادة على الله nga taxaw ci urne bi ne yàlla day maa ngi lay seedal ne sëñ Gora Ndiaye mii laa jàpp ne moo gën ci réew mi moom laa xam jàpp ko ne moo gën ci réew mi ah bi nga ko bi waxee yow képp ak yàlla yéena fa ne ca urne ba waa ji di nee na diw mi moom la jàpp ne moo gën ci réew mi da ngaa jot ne bu ñu noppee balaa tey dañuy dem rek noonu mu jeexal bu ñu noppee ba yëf yi jeex yàlla ne waaw vérifier leen ma kon ba xam Gora Ndiaye moom loolu mu waxoon ndax mu dëgg xel ma